لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن ñi nekk fii ci base bi yépp même pousse pousse bi nga xamante Mbàkke toog waa Touba ca kanam ñoom ñoo ko ko jox kon waa Touba ca kanam fàttewuñu les personnes en situation da handicap kon ñu bàyyi xel bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi fii ci Touba te nga yor kuréel na nga jàpp ni yàlla kat dafa séddale yàlla séddale doomu aadama séddalewul yàlla bu ne waxta si mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñu ñëpp dañu war a ànd booloo nekk benn ngoy ci buumu yàlla di dimbalante fa aslihu bayna axawaykum moom la yàlla wax fa aslihu bayna axawaykum lii waa Touba ci kanam tey dëggal nañ loo xamante ni macha allah seen liggéey bu fekkoon waa Touba ci kanam dañ ko yemale ci tali yemale ko ci poste de santé yemale ko ci sëñ Mountakha yemale ko ci feneen fàtte les personnes en situation de handicapé kon waa Touba ci kanam dinañ def erreur a mag bu sëriñ Touba dara looloo tax waa Touba ci kanam seen xel dem ci les personne en situation de handicapé ñu ñëw di leen jàppale te du pousse-pousse kese ah du pousse-pousse kese parce que ci weeru koor gi jëflante nañ ñun handicapé yi jëflante bu rafet boo xamante ni nekkul woon ay pousse-pousse waaye yeneen xéewal la. kon ngi sant bu a baax a baax eh, di wax personnellement itam nit yi nañ gën a conscient nañ gën a nitee xam ne àdduna lépp am na fii waaye nañ ci bàyyi trace sëñ bi sëñ bi rek doyut yow lan nga defal sëñ bi yow fan nga bëgg a jaar pare sa bopp yow fëgg fan nga bëgg a dem ñu boole ci dëggu nit dafay dëggu liggéey mënoo koo def te dëggu woo liggéey mënoo koo def te ñimee woo man nañ ndaak xam ku ne xam ne ne dara tiitoo parce que li ma nekk dama koo gëm kon nañ ciy boole pësteef ak dëggu di wax ne góoñi nan takk ci jigéenu handicapé yi du ma jug di ko wax takk waxuma takk ñaata pexe ci xale yi laa wax takk toppatoo laa wax di wax ne ñi am ay entreprise nañ ciy jël waa handicap yi ñu mën a dugg ci oto yi mën a bokk ci signé bind ñi ko man baax na ñu def ko kon nag lees man a def kuy jàppale te lépp kenn mënu koo lim ndax nit buñ ko jàppale wutoo duñu ci àdduna kon ñi sonn nañ leen di bàyyi xel te wërsëg bi matt na ko ndax ku ne li ngay dund boo ci defee Touba ci kanam may Mbàkke def bintu mi ànd ak man di liggéey def abikan def rek nga xam ne yëf yi war na mën a jàpp mais doomu aadama yi am nañu sonn te dama bëgg ñu sonn itam bu ñu commencé génn ci tool bi wane ne génn nañ ci tool bi nit day avancé nit bu la yàlla dimbalee ne na la génn ci dara da ngay amassé nga jëm ci génn mais buñ tënkoon dugg ci souffrance souffrance kenn du ci dugg. dana leen yàlla fay te yëkkati leen. parce que c'est la première fois ci association bu nekk Touba def social indi fi lii mu indi man damaa doon sax gars yi xamuñu ma mais waa avec waa Touba ca kanam dinaa gën a takku seex dinaa gën a jàppandi te du ma wujj réunion du ma def dara te lu may def sama kawara lañ lay woo fekk ma ci président bi fi nekkoon nag macha allah waaye bii ñëw itam yàlla ko fi yàlla saxal ba ci kanam a kanam. إني كسول نائم مكول يا مالك يا خالق الأنام هو نوايا علل المنام يا مالك يا خالق الأنام أمد نوايا خليل المنام يا خالق يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات wa anta sul jalaali wal ikraami fa najjini wa awlini maraami min kaaruumul yawma an nakuuna mimman abawni xayri karrukuuna wa an nutiiuka bi naajil mustafaa sunnaati baydaa yaa man istafaa yaa xaafira sunub yaa xariibu inni ubayduna huna xariibu li abisaaka wa li ixwaani jamii saadata daarayni aqal yaa samii habliya fi asa duaa ijaaba bil mustafa wal aali wa saaba habliya fi asa duaa ijaaba بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في مقاسمي وللسوي ديني بجاه قاسمي ولكسفا ليلنا والبهيما بحرمة المحبوب إبراهيم